làmb ak tamit ñu koy seetaan ak ñu ko bëgg ñoom la ñuy waxtaanal jëm ci combat bu mag bi nga xam ni Jeri ne production daf koy tëgg ci stade Iba Mar Diop ci mois d'octobre ñu combat boo xam ne nag combat bu mag a mag la ndax combat la boo xam ne ñi doon wut combat yëpp moom leen doon wut mais dafa jafe donc loolu moo tax ñu ngi ci féliciter di remercier suñu coordonnateur muy Lahat Ndiaye ci liggéey bu mag bi nga xam ne mu ngi koy liggéey ci biir làmb ñëpp xàmmee ko ndax mën na liggéey ak ñëpp te kenn merul te kenn siko la loolu ñëpp mënuñu ko yàlla na ko yàlla jàppale ci loolu def jàmm te yoon bi bu nekk yàlla na ci yàgg te di def li nga xam ni moo ko man ndax ku nekk li nga man man li may def laa man moom li mu def lay man ñu am na combat bu mag boo xam ni mooy am ci diggante ñaari xale yoo xam ni seen tournée rek doy na programme muy ambulance bu Thiès nekk écurie Euh, bëgg sa waajur ak tamit euh, armée bu benn baraak mbooloo ñu ñaari xale yoo xam ne seen combat yi ñu mujj bëre dañ si wane ngor wane ci jom ba combat ba jeex loolu moo tax Jëri Ngoné production choisir leen parmi xale yi nga xam ni ñoo fi nekk ñu ràññee leen trop pour ñu bëri combat bu mag boobu ci Thiès la jóge kii mu ngi jóge euh, booru yëmbal xam naa nag xaw ma fan la ñuy daje ci diggante bi ngeen di daje wala na ngeen daje làmb ja combat bi daal am na lu ñu ci séntu ndax am ngeen bor boo xam ne amee ngeen ko amateur yi ndax xam nañ seen talent xam seen valeur léegi li def mooy gan dañ koy ganale nañ bàyyi ki nga xam ne mooy assurance jóge Thiès mu wax xalaatam ci bëri bi nu ko gisee a tamit digganteem ak jëriñoo ne production bi nga xam ne ñoo koy produire. buñ fi jógee dem ci ki nga xam ne mooy armée moom tamit moo wax xalaatam ci kombaa bi puisque namm nañ leen ndax seen bëre yi ngeen mujj bëre dafa neex amateur yi kon lu ñu def mooy jox kàddu gi ki nga xam ni mooy assurance bu écurie euh, bëgg sa waajur moom tamit moo wax xalaatam ci combat bi nga xam ni moom lay bëre ak xale bi nga xam ne mooy armée. siyante bi sant suñu ñaan waajur dañuy sant suñu paa yi ñu fekk fii suñu père rek suñu mag yi ñëpp sant nag ëttu làmb bu baax di sant sama adversaire bu baax waaw làmb ji moom defe naa maa moom woon nañu dañuy laale waat ñi nekk si biti naan leer na leeru xanaa bii dina leer si kattanu yàlla incha allah maa ngi xool nag lu muy wax si làmb ji lu muy indi rek ma takk si rip jërëjëf armé billah bisimillah inna wali maa ngi nuyu assistance bi fi teew yëpp euh, rawatina waa presse bi di nuyu suma papa yi fi nekk mel ni jawlu nuyoo bi teg ci loxo père ñoo bàyyi rek di nuyu suma manager Pape Diagne Seras di nuyu tund bi may yeewoo muy yëmbal Malika Kër Massar benn baraak di sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu suma papa suma xalifa Serigne Cheikh Kounta Ndiaye yàlla na yàlla yàggal taxawaayam ci kaw suuf di ñaanal suma yaay yàlla suufu tubaa oyof ci kawam ak mbooleem julit waa di am contentement ci Abdou Lahad li mu def nii euh, di ko sant bu baax waaw ay ndaw lañ yaakaaruñ lu dul làmb kon bu ñu tëggalee làmb rek jàppale nañu si suñu métier ñu koy sant bu baax yàlla na yàlla na yàlla na yàlla yokk taxaw yàggal taxawaayam ci kaw suuf di wax mbër mi lenn rek benn yóbbante nit day gore ndax ñi nga daan ñëpp da ngay taxaw ne da leen daan bun la daanee amal courage ne dañ maa daan nit du def di tilimal victoire wala dara victoire ak noo ko amee victoire la yàlla dogal na ñu bëre mu may man dam sa kaw te ci incha allah ci kàttanu yàlla damay liggéeyaat lu ma mayaat ndam sa kaw loolu la sama bët tege nit nag day gore quoi dama lay dégg ñu lay teg ay interview nga naan deux defen nga am yow quatre défaites yu ma xam ak yeneen yu ma xamul yaa yaa am te yëpp yu leer naa ñi la xam nga ñun nag nekkuñu fi pour di kii da ngay mën a yaru ñu bëre yow munoo ko laata ngi nii ñu bàyyi combat bi léegi amuñu si lu ñuy gagné dañuy confirmer rek yaru nag lañ la sant wa salaamaaleykum wa rahmatullah. loolu mooy li xam ne Armé na ko defe naa. lam moom bañ na ko suñu kilifa buñ si nekkee ñun xale yi dañoo war a yoru yaa ngi dégg ay waxu yoru ay wax yooyu làmb la. Laxaat Njaay décroché na combat bi lii am am na pare man ak yow la du keneen li waay du wax na wax mais man ak yow la si biir géew bi. armée di nga bëre de nga bëre di nga xeex yàlla xam na ne lu fay neex man la dama ko duma woon daan ko. dafa passé waaw boobu dafa passé léegi damaa gën a màgg gën a yokk expérience di tàllal loxo suma waa secteur. waa yëmbal Malika Kër Massar surtout benn baraag bi may yeewoo ñu taxaw ma di wax waa Thiès tamit. nañ taxawu seen doom nañ ko jàppale ndax damay dégg mbëru Cees bu ñëw bëre si ne aw ma jàppale loolu ñun def ñuy metti jàppale leen seeni doom man de xeebuma ñu may jàppale damay ñaan yàlla mu yokk mais bu leen ko seetaan ngir yàlla damaa bëgg mu ñu duy stade bi ba ba stade bi xam ni yëngu na dimbali leen mbëru Cees yi ngeen jàppale leen man xeebuma ñu may jàppale de mais bu ñu yokkee ma jël jërëjëf kon euh, defe naa ni ngeen wax yéen ñaar rek euh, am yokk moom bu xeexee ma dóor ko mu daanu bu bëree ma jàpp ko daan ko nànk loolu am lu ma yokk te li mu wax kàddu gi mu wax foofu dama ko si jàppale dama ko si jàppale bu baax jërëjëf arme nga xamee ni yow yaa ngi toog dakaar di déglu mbaru Cees yi ni jàppale wuñu yaa ngi dégg man nag maa ngi sant yàlla làmb man daawuñu ma jàppale si dara parce que demuñu ndax di yaafuus wala ñu nekk fii di yambar yambar déedéet kenn du taxaw si géew bi naan da ngaa ñu naan la kii ab lii la wala déet déedéet dañoo bëgg ñu génn jàppale ñu si kàttanu yàlla ay xale la ñu yor de te bu ñu jàppale barki seen Touba Mbacke dinañ gis résultat bi. jërëjëf waaw li ñuy wax ci seen bés waaye nag bés bi tamit dafa am ku ko tuddee Bakar nañ ko tuddee diggante mag njëri euh, njëriñ bu ne production ñëpp xam nañ xale yoo xam ne dañuy ànd di liggéey ñu leen di ñaan nag yéen ñaar ndax fan yi ñu génn dañu dégg ay violence yu bari ci face à yi. waaye defe naa ne lii nga wax sànq yow armée bi nga gërëmee ambulance ambulance gërëm la yéen ñaar ku ci nekk mooy jox sa room xaalis defe naa li koy taxal ba bu ëllëgee laxaat doo leen xalaat ba indi leen di leen signé le contrat defe naa doo leen ko def ndax mbër yi bari nañ fi li tax laxaat choisir leen am na raison yi bëri leen ko ci yoon bëri ko ci ngor bëri ko ci yar ak teggin ndax tamit mbër lu mu am te amul yar saful nit ñi nit ñi yara leen intéressé kon bu ñëw na ngeen indi loolu ñu ngeen àndal tamit ngeen wax leen loolu dinañ toll époque boo xam ni yàq passé na ndax gis ngeen Covid bi lim ci def kon kuy ñëwati ak ñi mu àndal na nga wax ak ñoom ne leen bu leen ma yàqal nit boo ànd moom doo ko yàqal. Hmm. non violence bu ñëwee nañu ànd ak dal ànd ak tekk te xam ne tàmbu jàmbur lañ jël avance jàmbur lañ jël. yaa ngi dégg li fi jóge woon li fi amoon jóge na fii. yaa ngi dégg ñu ngi ñaan yàlla loolu yàlla na fi gëcc yaa ngi dégg ñun ay ndaw lañ làmb lañ yaakaar bu ñu toogee bariwuñu tey du baax suñu yaa nag dama leen di ñaan yàlla ngeen génn yéen ñëpp ñu duy stade bi ba fees dell ma defara bagage sama waa nekk ndaw di di di dugal li ngay dugal stade yàlla dogal ba nga dalee bari ba léegi yàlla mi ma tiim xam na ni mbapat laa la wax ba arène def naa douze combats arène plus mbapat musumaa taxaw buntu police musuñu ma akisi kon ñooñu gàcce ngalaama armée bëre lii am na li Gris Bordeaux di wax euh, benn supporteru naanite moom ma gënal téeméeru ngaaka man ay naanite la ma yàlla dénk muy armée armée ak arméen yi ñiy bëggee armée xamuñu sax ay violence ñoom doxuñu ci loolu xanaa dañuy wax dañuy conseiller ñeneen ñi waaw ñu ñu ñu jiital yar ak teggin xam ni mbër mi ngay xeexal moom xeexul xeexuloowu la li li am importance mooy digg géew ba mu wane fa njom njàmbaar fulla fayda loolu rek moo ci am solo mais nekk di xeex kuñ ci ray yaa perte dañ lay jooy ñetti fan fàtte la kon na nit ñi delloo seen xel bu baax mbër mi xeexul xeex xeexluwul armée moom mu ngi sant ay supporteurs am bu baax a baax a baax a baax a baax di leen remercier waat bu baax musuma dem police wala ñu ni ma sa supporter moo fi def lii macha allah maa ngi ciy sant bu baax. jërëjëf Ibou Ndiaye communication wax ci sa xalaat joxe ci sa kàddu euh, toogal fi nga toog ci sa xalaat joxe ci sa kàddu ci bés bi nga xam ni moom la ñu tudde yi jërëjëf El Hadj dama wax ne jëriñ nga ne ndax. boo toppee histoire boo ne jéeri ngoone maa lobe sàmba da nga naan ku li may ca séngi ndaat jéeri ngoone mbay kon bu wëlbati koo tëgg bés bu mel nii bés bu rëy boole ñaari xale yoo xam ne dama yaakaar ne daal Abdoulaat Njaay daal am na lu ko dal parce que damay wax ne looy jeex de la waaye loo daj yaa ko moom lamb dafa toll foo xam ne tey xale yi kenn ku ci nekk ko ci dëkk micro mu ne la sama yaay ak sama papa laa bëgg a teral te kenn ku ci nekk ci ñoom am nag loo wane ci lamb ji am foo toll ci lamb ji am loo bëgg ci lamb ji Abdoulaye déclenché nag loo xam ne euh, alaaji pap kenn ku ci nekk mën naa laa décrire lu mu doon de armée euh, ëlleeru gumba la xamewul kaani la nungu na séddale waaye nungul sàqami muy combat boo xam ne na ci xale yi bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax kenn ku ci daan ku ne dem fekki grand yi parce que ñi fi nekk mënuñu leen de boo nee boo nee euh, euh, euh, ambulance xam nga ne ku accidenté ku ne boo ambulance gaawul nga am problème waaye nag dafay dajeeg borom métrailleuses yi koo xam ne bu dikkee bu tuusee ba pare ratatatatat combat la boo xam ne jéeri ngoone daal tëgg na komba boo xam ne moom la senegal gépp doon xaar rawatina nag mu tuddee ko Sénégal. dem samedi muy le 19 diggante Garga 2 ak Mama Lamine loolu lay waxaat ci combat bii dama wax ne jéeri ngoone tudde na bés bi koo xam ne mooy àdduna mooy Sénégal ndaxte tey boo demee Kaolack fàttaliku alaaji Ali Guèye soxna ñaan fàttaliku ma sayer fàttaliku ki nga xam ne mooy alaaji ba sàmb fàttaliku ki nga xam ne mooy yëmu góor nga xam ne am tëgg foofa yem mu dikk nag moom wane boppam ci réew mi ba képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi ràññee nga Bakane Seck Europe xam loolu Asie xam loolu Amérique xam loolu kon kooku buñ ko tuddee drapeau yaakaar naa ne képp kuy wala ngay déglu kat mbaa ngay katu musique stade ba day fees moo dama leen di ñaax rek ci li may wax toujours yar ak teggin dafa am solo dima leen di wax nag mooy kat app jëll la wëlbit gaa waxi noppi ku ñu dóor mu daanu na la ngañ ubbil bunt bi ndànk nga dem sans problème ay caay caay ca maa la ko wax yow la njaay modestie euh, lépp am na waaye nag bés bu toll nii li nga ci liggéey tol na foo xam ne il fa nga waxti ndax sa yéene feeñ na waaye wax jee ci des. asalaamaaleykum ñu ngi leen nuyu di nuyu assistance bi fi teew yëpp di kontaan encore une fois ci feggu ak alaaji Papa di wax ne encore une fois merci jëri ngoone donc làmb liñ ciy bëgg rek mooy souvent koo yokk te ku koy yokk rek boo yeexee sax ñu yootula la jëli la yaakaar naa bu ngeen gisee ñaari xale yi toog ak image bi am ak li am fii tey xel mën na dal présenté woon nañ leen benn combat espoir yàggul même pas deux semaines ma tagu ko mu dox ci diggante Vito ak xale bi nga xam ne mooy Sa Thiès bu Thiaroye sur Mer combat bii nag boo gisee ñu àndi ko ku ne xam na ne ñaari mbër yi toog tëj nañu Iba Mar tëj nañ ko tëj ko tëjati ko ay mbër lañ di ay champion confirmé ci làmb ji andi plateau neex na andi ñaari jëmm taxawal neex na waaye andi koo xam ne buñ ne mooy kan boo tàppee internet fekk lim fa def ñu ngi leen di félicité côté de côté Thiès ñu ngi leen di di nuyu wax dëgg yàlla Pape mbay bu baax su nijaay maa ngi koy nuyu di nuyu aussi Ousseynou ak ñi ñu àndal ñëpp di nuyu aussi côté armée ku mel ni Talla Diop ba ci ménager Pape Diagne Seras suma xarit Taaji bi Ndiaye jox baay jërëjëf merci. nit ku mën naa jëkkante lu ne. ba mu des wax lu baax. leneen lu bokkul ak lu baax. du tax sunu borom daganal ko ndax sib na ko ba noppi. kon lu waaye di wax mbaa nga koy jëf rek na doon lu baax mbaa mu leer yàlla na sunu borom suturaal ñu ñu ngi bëgg encore une fois ñaari xale lañ di ay champion ambulance bu Thiès gis nga ko fa mu waree combat bi nee naa dafa làq woon te jamono ji ku ne xam ne taxawal combat bu taxaw yombul parce que ñi war a bëri ñu bëri dañu laxasu waaye ambulance bu Thiès wax naa la ko tëj ne toj na bu mar toj arène nationale armée mi combat petit combat bi mu koy bëri day bot bés koo ko booleel tête d'affiche da koy duy ba mu fees kon suñ ko jëlee boo yamuñu ci pare ay espoir am luñ ci bëgg a def Jéeri Ngoone nag mën na ne label la boo xam ne mën nga ko seen waaye li ci biir intérieur moo jar a laaj ñu demee ba ci kanam alaaj Papa Dieng dañ leen ko wax alaaj Papa Dieng doxul ci lu ñàkk fayda ci fayda rek lay dox te man ku ma xam ci fu fulaak fayda la bi ñu toogee waxtaan mu wax ma li mu bëgg dama ko ne toogal foo ne maa la fay fekk waxal li nga bëgg ñu defal la ko mérité na ko liggéey na ko ci réew mi ab Sénégalais am fayda lool di doomu réew lu baax lay wax di ko def nit nag bu dee def lu baax di ko wax cim réew lu mu bëgg waru koo jafe kon ñun lépp lu nu mën muy sunu xam-xam sunu xalaat ak sunu doole danañ ko def ci bis bii di jaajëfal ñaari mbëri di leen félicité bokk nañ ci mbër yi gën a yaru aussi ci làmb ji di gërëm ñi nga xam ne teew nañ fi yëpp waaye daal ci kàttanu yàlla bëgg nañ ci liggéey lu mucc ayib balañ ci àgg di gërëm staff bi yëpp wax dëgg yàlla bu ñu limee rek danañu jum ndax jéeri ngoone quelque ngay gis ak li ci ginnaaw waaye drapeau bàkkoon sec suma xaritu xarit la parce que suma xarit suma doomu ndey muy jéy jéy seen DJ production ku ne xam na ni ma mel ak moom ma bàkkan sec ay xarit lañ bàkkan dañu bari ay càllale yu ñu jàllale digganteem ak Pape Diouf ku ne xam na ni mu mel Pape Diouf aussi suma xarit la kon bu ñu ko tuddee bis bi tudd nañ ko borom yaakaar naa ñaari mbër bokk nañ ci mbër yi dàq tuus ci làmb ji naa ni bu ñu jëlee baj géwal teg ci digg bi ñu bokk ci xale yi dàq tuus ci làmb ji làmb ji daal ci kàttanu yàlla yàlla ñu ci yàlla yóbbu ak jàmm c'est prévu def ci mois d'octobre ci kàttanu yàlla bu ñu ko yàlla ci kàttanu yàlla bu ànd ak dogal suñu borom am ngeen temps am ngeen temps entraîné am temps de préparation teel ngeen jot avance dara la ndëmu ci leer na nañ ci kattoon yàlla kon yéen a ci des ñu ngi tuub tey jéggalu ñëpp yàlla na jàmm yàgg te sax dàkk jërëjëf. à travers le monde bi sama ànd naag moom ñu def ay tournée en Europe daje nañ Belgique ci palais des beaux boo xam ne spectacle bu njaay Dundiaay Kumbaros doon def keroog bàkkan euh, spectacle bu rëy la fa def kon bon mbokk euh, téléspectateurs yi euh, mbir maa ngi nii ñu ngi woo ñaari manager yi nag. ginnaaw bi ñu présenté mbër yi ba pare ñaari mélange nag ñooy ñëw ma sant yàlla julli ci Seydina Mohamed maa ngi gërëm sama ñaari waajur di sant sama sëriñ Seydi Mouhamadul Mansour xalifa sëriñ Abbas di ko ñaanal yàlla gudd fan ak dañu lay déglu bu baax a baax say waxtaan ak say xalaat te it macha allah ngay borom xam-xam xale yi bu ñu doon déglu ci yow daanaka mën naa ne jëru sax ñu entraîné parce que li ngay wax ci làmb dara du ko dindi bu dee ci football noonu bu dee ci làmb noonu kon Dieng yàlla na yàlla taxawu la yàlla jàppale la ki ñu tuddee drapeau bi tamit aussi di suñu nawle di ko wax ni daal maa ngi nuyu ambulance bu Thiès di nuyu manager am ndax ni ma ko waxee léegi nii bi ñu duggee ci biir bi ñu déparé dani joxal Pape ba pare ma ne ko noo cër bi nga ma jox delloowaat naa la ko léegi rek bi suñu xale yi bëree cees wax dëgg yàlla moo ñëw indi reliquat yi jox ma ko kon ñun ñoo bokk nday ñoo bokk bàyyi di nuyu sama mbër armée nga xam ne wax naa ko bari na mbër yu ma yor léeg-léeg ñu bari dañuy wax ne Pape mbër yu mu yor arme la ci gën a bëgg mani mani déedéet man ñëpp laa bëgg man ma mbër mu ndaw ak mu mag dama doon ñaan yàlla nag di ànd ak xale yi ci cent mille francs ba ànd ak ñoom ci ay millions kon yàlla defal na ma ko kon maa ngi sant suñu borom bu baax kon li may ñaan yàlla mooy yàlla yóbbuñ ci bis ba ak jàmm moom mi nag dinaa ko seede du toogaay moo tax parce que mbër dénk la boppam yomb na waaye dafa am ñoo xam ne dañoo foo dëgguwuñu mais moom lépp loo wax mu ni taala ak Pape Diagne duñu wax loolu laa wax su ngeen noppee wax ci man mooy bàyyi naa lamb te ku ne xam na ni fi mu toll tey ci làmb àgg na foo xam ne tey ji ci mbër su ko neexoon déglu ménage déglu taala parce que promoteur yëpp ko soxla ndax fi may wax ak yow nii am na combat bu mu amoon mbër boobu ñàkk ñëw Sénégal moo tax bëri muy diggante ak fëga la kon amaat fi combat bu fi amaatoon encore ati mu yàqu moog dumbul li nga ko tëggoon dumbul dem États-Unis ñëwul ñu ne dañu am chance daanaka mbër yi ñu am yëpp dañuy tukki buñ tukkee dañuy daw xaw ma nag dañoo ragal méta yi xaw ma lan la mais nañ ñibbi si ñëw ñu jëflante ñoom waaw <laughs> di gërëm euh, waa kër gi bu baax di nuyu ñu ànd ak armée di nuyu ñu ànd ak ambulance bu Thiès di leen wax ne taxawal ngeen combat boo xam ni yaakaar naa ni nii ñu bari xalaatuñ ko woon moo tax laxaat jinne la maa ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm moom it di ko ñaanal yàlla may ko fanu gudd yàlla may ko wér ndax xamal tax ma di ko gërëm mooy bu doon tey jii kuy xool intérêt la du taxawal mbër yi am na ay mbër mais dafay xool toujours loo xam ni buy liggéey ak nit li mu bëgg mooy moom làmb bu feesee rek xolam sedd na ambulance bi Thiès bi tëj na Ibamar armée mi tëj na Ibamar ñaari mbër lañ yoo xam ne bu ñu tuusee mu neex bu ñu feccee mu neex ni ma la wax toujours xale yi suñu njaboot lañ waaye ñoo ñu ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo mayante xaalis xoolal championnat de football bi ni mu neex papa bu doon ay milliards bu ñu paree gis nga ñaari entraîneur dañu joxante loxo ku ne sa morom dem loolu laa bëgg làmb delluwaat foofu ñu xam ne ñu duñ ay ennemi ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ambulance mii ak armée mii wax dëgg yàlla xoolal papa fi ñu jote avance laata fan moo des ci tabaski gi kon ñoom seen ñaan nangu na salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm sama doyen Pape Diagne mooy suñu kilifa fii moom lu bu mu waxee rek ñun kenn wartoon a ndax lépp lépp moo waaw moo suñu kilifa di di di nuyu Abdoulaat Abdoulaat làmb da ko war a delloo njukkal ndax Abdoulaat ñi nga ñaari mbër yi taxaw am na ay mbër yu mën a bëri grand combat xamul xamul mbërëm ak ñàkk mbërëm moom combat bu neex lay tëgg kon Abdoulaat dañ ko war a delloo njukkal ñun waa làmb surtout ment ñun managers yi war nañ ko delloo njukkal bu baax di ko ñaanal lu mu bëgg ci barke turandoom yàlla ko suñu borom defal waaw di nuyu doyen nga xam ne Pambay nga xam ne mooy mag ci ambulance di sant ñëpp nuyu ñëpp teew ñëw ala baba jërëjëf yow yow jërëjëf rek fu ñu la fekk war a sukkal di la raamal jërëjëf li nga liggéey ci réew bi ñëpp gis nañ ko Sénégal ñëpp a ci teg bët ñoo ngi lay ñaanal bu baax a baax di nuyu ambulance di nuy armée ñaari mbër yi boo leen xoolee bi ñu dugg si ñoom ñaar ñoom ñooy ànd dugg ci escalier yi kon lu rafet la xam nga ñoom euh, Sénégal supporter xam nga lu ñu war a bàyyi di xeexal mbër mbër xeexalul kenn képp ku xeex boo gaañoo yaay per mbër yi bu ñu duggee ci biir géew bi dinañ def li ñu war def ki war a daan daan keneen ki dem yoon ñu joxante loxo supporter bu ñuy xeex boo gaañoo da ngay per mbër bu mun naa ñëw seet si la bu pare pare na ci yow kon ñu ngi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñi di di di wax armée te gun combat bi moom Abdoulaye dañ koy sant ko ndax combat bi Sénégal tey koo taxaw ne du ko gëm ndax man bi ñu waxee ba pare ne combat taxaw ne man tànk dew ma ba gisante ba ñaari bëri toog ñi sëyi du ma gëm ne combat bi taxaw na ndax combat Sénégal yëpp ko soxla dañoo bëri bëri bu rëy ci stade bi ñëpp jóg taxaw ambulance daal ñu jox ambulance victoire ambulance ñibbi këram ba feete mhm. gars am Pape Diagne def recours mhm. ñu jël victoire joxaat armée mhm. le dafa war a leer combat a leer a bëri waat mooy Abdoulaye daa xam fi muy dellu fi delloo affaire bi la xam laa mujj neex la xam ba pare beneen bi tool ñu tuddee ko Bakane Seck Bakane Seck nga Sénégal moom ku xamul Bakane moom amul ak li muy def ba pare dafa boole ñaari ñoo xam ne dañoo dégg galan lamb ji moom dama lay waxal nii xaw ma kande waaye ambiance moom ji moo ci dàq ci Sénégal ci lamb ji taxaw ambiance waaw mbëri de ko mbëri dañoo dégg galan dañoo dégg galan di sant waa Thiès ñëpp nag di leen wax seen doom am na combat muy ambulance moom lañ doon laaj boobu ba léegi moom lañ doon laaj am na combat cees yëpp autorité bu ti nekk Thiès combat bi soxal nañu dañoo bëgg ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp ci ambulance génn ñëw duy stade ba mu fees dell di ñaan yàlla nag mu daan armée ñi dem ñibbi neexee yàlla jërëjëf benn di ma jàppale di sant suma grand ak suma ménagère bi di wax nag benn baraag yëmbal Malika Kër Massar ak képp kuy bëggee armée combat bi sa combat nañ ci jàpp ma booleeg li mën ñu ñëw defaral waa ji ci kàttanu yàlla waaw aw ma ci lu may tiit wala lu may ragal dañuy delloo mbàttu ca ndaala rek wala delloo buum ca mbooy rek jeex na tàkk. waaw man damay sant sama ménager Ousseynou mag Pambay ak Ousseynou Cere waaw di woo nag waa Thiès nañu génn di woo sama mbokk séeréer li kulu dañ jàpp ci combat bi jàpp booy bi defal ko bagage nee na nee na damay defal bagage da ngaa baax di wax rek xamoo li xaar boo xamoon li lay li nga xam lépp dëgg la ak ki borom Tuuba. jërëjëf defe <laughs> moom lépp risqué la rek dara yombul waaw jaam nag ak pexem yàlla ak dogalam mais ñun am na yaqin bu baax ne dañ koy daan def ko luñ ko defoon lu ko raw sax. xam nga bépp laam-laamee da cee amoon mais mosuñoo bëre combat bu am laam-laamee ku ku ma xam ne sama kombaa yëpp wëlbit gàng waaw te ci kàttanu yàlla jël bu leer naññ bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daan ko maako ko dàq bëri fuuf. waaw man moom xam nga rek laala nañu man ak moom ñam na ñam na ah léegi nañu xam kan moo si yàlla kan lay may ndam ki dàq bëre yàlla na ko yàlla may ndam. dégg nga ki daa fecc yàlla na ko yàlla may ndam Touba daa réeree mbir waa TK ñu ngi may xaar dañ maa yàqamti saa ngi dégg lu ma wax waa Thiès gi yëpp combat bi seen combat la ñoom laa ko diis damay booy bi dama koy defal bagage déggoo la wax man lu ma gëm la xam mu naan am man trois défaites la am maa ngi am euh, vingt deux combats trois défaites la am vingt deux combats waxaatal keneen koo génn. Ahmed Deme dalaa bii lay leer. man la. ak li lay daanaat ci yow trois défaites la am am 17 victoire kon xam ngeen kii waruma bërëg moom làmb tërëri rek mais dinaa ko wan nan ak naka day bari dina tëj gémminam xale bu dee cali cali da ngay wut bant bale di ko caw si taati ndax mu mën a bokkul bokkul boo mu xoolee nga xam ne demul fenn fii la toog Dakar waaw mbapat mooy lépp pare mun ma ko compter barki borom Touba mun ma ko compter laajal ñi may àndal topp nañ ma xale ba ba ni ma doonee. lu gars yi dañuy wax naan combat bi leer leerul man dama man fa laa amee fan laa amee ndam man xale laa sa gi géew ba laa ko daane man du ma bàyyi bañ génn si biir ñu naan ma ay jox nañ ko victoire man gëw ma loolu man fii laa gëm nee na fii la gëm si di géew bi saakanu malaak man mii dama koo teg fu wóor nañ koo teg fu liggéey damaa liggéey caaxaanuwuma bokkul waaw ku ma xam-xam ni gudd rey dugaluma ci làmb wallaahi te lu ma ni mbër ñi jaaxal mbër ñi musuma am 100 kilos sama àdduna bi may dugg pa El Hadj Papa Dieng première premier combat le 13 novembre yaa ngi toog ci palaatu bi ba Père Birahim naan kii moom ndax mbër la ma Père Birahim naan ko mën naa bëre de Père Birahim moo mën a wax ba xam mbapat naa wala mbapatuma moom rek mu laa mës a mu fekkee sama mbapat may daan tili de 130 kilos te matuma 90 kilos. mu yéem ko ma jël tournoi bi muy tournoi bu waa 2S tegoon man ci mbapat tax ma jël mu ni ma eh, ndax yaa ngi bëri arène ma ne ko déedéet mu ni ma kaay ma utal la licence man ko per dafa teel wallaahi per Biraay mu ngi may dégg mu ni ma ñëwal nga naan ma dafa teel yow lii nga wane fii boo ko wanee jëlee ma benn baraag yóbbu ma këram defaral ma licence dama kaay ma boole la ak Pape Diagne Seras mi ma ni ko xaw ma ko mun ma kan nga xam ma ni ko licence Pape Diagne Seras loolu ma ni jox ko sama licence mu bëralew ma sept combats sept victoire ma tegale ko di yow boo ne yaa ma dàq bëre dangay ngay wax lu la neex man ku ma xam-xam ni bëre ci man la féete fekk baax ambulance da ngaa jël loo xamaatul xam nga lan moo na boo lan moo ma boolewaat ak yow làmb ji daa taxaw ci Covid lañ jóge mm, nekkuma fi di tàmmooy adversaire dañ ma laa proposé awma lu may wax lu dul jël ndax mooy sama métier mais bu doon yoonu làmb rek heure bii revanche dafa teel ba ma bëreeg yow ñaari combat rek laa ci teg teyal rek li ma la wax rek boo dalee rek ñu teg la ci kot considéré comme mbër say rakk ñooy bëre fekk si la te doo mën a bañ a may sens loolu rek moo ma boolewaat ak moom wasalaam. ñun ngay 2-0 ak logo jooju nañ ko soxla. dama ko jeex na am na